waaw liman shaa kum neex min kum ci yéen nag an yataqaddamu mu jiital def lu baax yàlla nee na lu baax moom wane naa ko ba mu leer nañ lu bon leer wane naa ko ba mu nañ wax naa it ku def lu baax lu la cay fekk wax naa yit ku def lu bon lu la cay fekk léegi nag faman saa an yataqaddama kum neex nga def lu baax acca liman shaa kum neex min kum ci yéen an yataqaddama mu jiital aw yiw mu def lu baax aw yetta ak akara wala mu sàgganee aw yiw sàggan toog doo def lu baax mu ne daa bu la neexee nga def lu baax boo ñëwee ma fay bu la neexee nga toog bul def am nga ci dara daa xamal ne kullu nafsin kullu nafsin bi ma kasaba rahina waaw kullu nafsin bépp bakkan laa wax rahinatun tayle la bi maa kasabat ca la mu fàggu bakkan bu ne tayla la ci lam fàggu bakkan bu ne li ngay jëf benn moo lay xettali wala li ngay jëf benn moo lay alal moo tax sa bakkan sa jëf mooy sa tayle ku bëgg nag sa nga sa bakkan bu mu wel ci safara dangay fexe ba bakkan bi nga def loo ko lu baax kon du wel safara danga koy génnee safara dugal ko aljana ndax kat borom xam-xam yi nee nañ te loolu yonent bi sax wax na ci ay nit koo gis ku ne ñaari kër lañ ko tabaxal boo déggee safara day kenn ku ne da am ñaari kët daf naañ tabaxal bâtiment bu rëy ci bi safara dem ajana itam tabaxal la fa bâtiment bu mag léegi nag soo defee lu baax ñu yóbbale ci bâtiment bale soo defee lu bañ ñu yóbbale ci bale tax kenn du jëli àq jàmm kenn ku ne la nga moom rek ngay jël nga tax faman saa an yetta xaddamay aw yetta aqara rek kullu nafsin bimaa kasabat rahina waaw ilaa asaabal yamiini istisna bi lëggéeyul da ngaa ilaa asaabal yamini waaye waa aljana noonu koy firee istisna boobu yow arab bi de xam nga ilaa da nga naan la arab koy xam nga boo ne kullu nafsin bi ma kasabat rayyin dot na ilaa ba mu def asaabal yamin kon asaabal yamin bokkuñ ci ah asaabal yamin ci la bokk de mooy waaye waa ne ilaa mooy waa asaabal yamin mooy ñi nga xam ne dañ leen a joxe seen téere yi seen dajor waaye ñoom ñu ne ah nga ne ñoom fii jànnaati dégg ko <laughs> te alquran du noonu de seetlu nga ko hmm? asaabal yamini waaye nag waa aljana ñoom waa asaabul yamin te mooy ñi jox seen téeri ci seen ndeyjoor ñoom fii jannaatin laa wax daañ nekk ci àjjana yett saa aloon na ñuy laajante yàlla nañ ci yàlla boole waaw dugg àjjana di laajante waa ana diw alal diw kenn ko ne di di nemmeeku say bokk daal ak say xarit ak say dëkkandoor waa alal diw di wër nag ndeysaan <laughs> di wër di seet di seet léegi-léegi nga wër wër wër wër xam benn waaye boo gisul gaa yi na la xam nga nooy def fii nag koo fi gisul xamal nga safara waaw parce que fa yàlla mu ñaari kër la <laughs> waaw waaw imaa rawdatu min riyaadil janna aw ah, xufratun min xufrin naar moom benn nga nekk àjjana wala nekk safara léegi nag mu wóor waayam mu wóor waayam gisu ko fekk waayam gi dafa garaawoon nag garaaw ga xaritam la woon waaye daal da daan waxtaan ak moom waa ji dafa dër bopp mënut a fexe ba mu julli lu mu ko sant waa ji du bañ ñu ne ko xam nga def rideau ba ngay dem taxaw mooy barrage ba nga dem taxaw fa séntu ba xam est-ce que new safara waa ji daal di dem yéeg ca fa ñu tuddee laxaraaf daal di séntu ba mu séntoo seen waa jàng ne ding ci safara sax mu ne laa la turdini law laa nihmatu rabbi konoon la kuntu minal muhdarin mu sant yàlla ne ah ànd naa yow fu ne dem nañ fa mais alhamdulilahi rabbil alamin ba ma la topput <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin ba ma la topput ndekete woon saa waay yow bu ma àndoon yow fii laa jëf <laughs> su ma àndoon yow fii nga may dugal tey loola man ca saaree ca gannaaw ca euh, soratu yàq tii nii yaakaar naa la nekk saafaati mu ngoog soratu saafaati in kunta la turdi nii yow xaw nga maa xalak waaye nag loolu laa neex ma tërëb bii du doon nag xewale yàlla li ma yàlla xewal konoon la kuntu minal muhadirin bokk ak yow fii ci biir safara waaye macha allah far naa mucc ndeysaan moo tax sëñ bi moo taxoon Seydina Cheikh waxoon ko Seydina Cheikh mu ne comme fa ñu wax ne almaru maa man ahabba yowmal qiyaam yàlla fa koy boolee ka nga bëgg mu ne nag kon nag falyansuril mar'u man yuqallil nit ku ne war naa seet ki ngay xaritoo mooy kan yàlla fa ne yowmal qiyaam nit ki dañ koy booleeg kay sa xarit ñu boole leen dugal àjjana mu ne nag kon war ngaa seet ki ngay xaritoo kan la war a doon xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am benn saaba boo xam ne da ko bëggoon bëggoon gu rëy su gisee yonent bi day jooy ngir bëgg gi ko bëgg waaye nag su toogee moom ba ca kanam bu xelam dajee bu ñu deexee yonent bi nekk àjjana mooy mu nekk àjjana wala du moom sax mu ñàkkaa dem àjjana mais day xalaat ne bu ñu deexee moom du ko gis moom parce que ñaar moo mën a même buy dugg àjjana est ce que moom dana dugg fa yonent bi duggul parce que yonent ko ëpp moo ëpp garaat kon du bokk moom àjjana wala boog sax mu wóor dana dugg àjjana far wala déet te moom mi ko bëgg nag te mu xalaat ne bis bu ñu tollee foofu moom dootu ko gisati moo taxoon nag mujj gi bu ko gisaan day mujj di jooy yonent benn bés mu ne ko yow boo ma gisee di ree kontaan bu yàggee ngay ko waaw li tax mooy damaa xalaat ëllëg bu dama xamul da ngay dugg àjjana man ma dem safara xaw ma dañuy dugg àjjana yow nga nekk ca kaw ca kaw fa gën a kawee man ma nekk ci suuf yonent bi kon ne ko maa lay waatal ne loolu du am almaru mahamman habba nit dañ koy boole kum bëgg maa yow ñooy bokk benn losement àjjana ngi may gis bés bu ne waaja kontaan na keroog dégg naa saxaaba yi yëpp ak kontaan dañ ne ko yow daal sëñ bi tey soye nga parce que lii sa xalaat la woon waaye ñun ñëpp ko amoon ñun ñëpp amoon problème boobu daal saaba yi yëpp ñoo amoon problème boobu waaye ñoom ñëpp dañ na ko dëgg dëgg sooyee nga ñu tey kon nag moo tax seex ne ku ci xaritoo nii seetal ki ngay àndal de waaw boo dekkee àndal benn waaye bu doy waar boo xam ne nii rek fële la jëm moom mu yóbbaale la fële waa ji doon wax yëndu ci kaw seen ko ci kii mu ne dungu loolu dalu xel de waaw waaye waa aljana laa wax waa asaabul yamin mooy ñu ñuy joxe seen téere yi ci ndeyjoor ñoom ñoom fu ñuy nekk nga ne fi janaatin ci àjjana doon la nekk nekk yetta saaloon na ñu ngi laajante di xool ba xam seen mbokk ya seen xarit ya anil mujrimiina ñu ngay laaj kàccoor seen kër ya anañu ñu xool xool ñu ne leen hé ñooñ kàccoor kay tey fii moom du fi dugg ñëpp nga safara gaaya nag ba ñu duggee safara ñoom ñëw ba ci biir safara ñu war leen a dugal biir safara ñu fekk fa bëkk néegu safara waaw bëkk néegu safara dañ leen wax waaye yéen lu leen indi fii yéen de li ngeen def <laughs> lu indi fii ba bëgg a dugg yéen xam ngeen fi ngeen jëmam xam nga léegi-léegi naa booy yi nekk ci kaso yi dañ la koy bu la manootee ba ak seen indi ngeen eh booy lu leen indi fii lée <laughs> yéen booy xam ngeen fi ngeen jëmam léegi nag gaa yi bu leen man man manati ba indi la ci butu safara war laay dugal gaa yi nag dañuy lii lañ leen ay laaj xoola maasalakukum fi saqar waaye yéen lu la indi fii laaj yaa ay laaj yu bëri la gaa yi ñooy tontal seen bopp de di wax te foofa moom wax dëgg rek amul fen xam nga àllaaxira loo tax mu neex fen amu fa tricher liñ doon def rek ngay wax fen kat ngoon nga ne waaw da doon naa fekk nga ne waaw da nga doon naan sàngara nga ne waaw da nga doon njaaloo nga ne waaw liñ la wax rek moom waaw rek yàlla nee na boo bëgg a xam nga nu may def al yawma naxtimu ala afwaayihim su ko defee nag wa tukallimuna aydihim yàlla nee na su ngeen fi nekkee di bëgg a lànk ma tëj seen làmmiñ yi ñëw ñëw làmmiñ yi yépp ba pare nag ma wax cër yi a ca wax leen xam nga bés boo mel lool kon ñëpp ay wax rek waaw ah, ma tëj laa gimiñ yi làmmiñ yi commencé di wax waaw gaaye na leen maa salakakum lan moo leen dugal laa wax fi saqar saqar bii di jaanama lu leen ci dugal xaaloo ñu ne la ci jiitu lam nakku minal musallin daanuñ julli ah, daanuñ julli waaw daanuñ julli de kon sëñ bi dee leen julli yee hmm? ñu ne ñan njëkk dugg safara ba la njëkk laaj lañ njëkk tontu mooy du daanuñ julli kon ku dul julli égal mooy lan safara rek waaw ku dul julli safara rek rek kenn mënu ko sooy ñaareel ba walam nag ku nekkuñ woon nutximu daan leel al miskiina miskiin yi gaa yu néew dool yi daan leen daan di leen dimbale naka gis nga miskiin di ko dimbale dafa baax xam nga boroom xam-xam yi dañuy wax ne yàlla dëkk boo xam ne sanc na ko ñu dund ren ba déwén joxe na fa lu ñëpp war a dund te kenn du am problème waaye nag ca partagé ba la desee nag ba mu koy partagé ba mu koy partagé fa la desee daay dem ci kii mu jox ko fukki junne kii mu jox ko ñaari junne kii mu jox ko ñetti junni kii mu jox ko fukki dërëm kii mu ko jox ko jaar dërëm kële mu jox ko dërëm daal na borom fukki junne yi nag bokk leen yéen ak borom dërëm yi ñetti dërëm ngeen bokk dëkk dëkk mu ne nag dimbalante leen yow borom fukki junne yi noo war a def loolu la loolu la yàlla bëgg moo tax adduna bi nas noonu la ndax bu borom bëgg mbëggalte ak coflante du am ñëpp buñ bokk xemoon rek fa ñu mujj beew xam nga boo nekkee ci koñ kay nga nekk fa benn waaye mu ëpp la xalal di yëkkati ci xalal ji lu mu def boo gisee bëgg ko moom it mu mu yokk cofetam ngeen di dimbalante dimbalante googu day yokk ci cofeel waaye ñun ñëpp buñ bokkoon yem boo fi xootee réunion kenn du dikk kenn ku ne day gis boppa moo tax kon dimbalante dafa baax moo tax bokk na ci ñaareel bi ba leen laajee lu leen indi safara ñu ne waram nakku nut yi bul miskina daanuñ leel miskin rek ñu ne ko ku naa nekk nañ waaye na xóodu di kuus maal xaa yi dina ànd ak noskat yi dañ daan kuus rek ànd ak xaa yi diine yi xaa mooy ñi nga xam ne garage place rek lañ topp bu tas ñu jàll ci beneen booy nañ dem garage place garage ñoom diw booy di ñoŋ fa booy yaa ngay ataaya nga dem fa bu ataaya ba tas nga di jàll feneen topp rek ku naa na na xóodu maal xaa yi diine làmb ju tas nga laaj feneen fuy làmb maxi bu jeex nga laaj keneen fu mu nekk ñooñ la ñooñ mooy ku naa noqodu maal qaayidin ñeneen ñetteel kuréel bi ba ne laajee lu leen fa indi ñoo ne ñoo ñoom loolu lañ nekkoon taluñu woon a julli gara place bu tar ñu jàll làmb ju jeex ñu jeex bu dee ci borom télé yi itam théâtre bu jeex ñu teg beneen ne ca rek di seetaan ak film ya rek seen dund yépp ci lañ ko jeexal loolu mooy ku naa noqodu maal qaayidin yàlla ne comme film film yi rek ci nga film yi fekkee am nañ fay dama dama ñu fay la ñetteel baa ngi nii wala ñeenteel ñenn ñi ne wakku naa nekkoon nañ nu kasibu di fenn di weddi bi yow mi diini bés pénc gëmuñ ko bu gaa yi waxee ustaas yi ñu ah ñi dañuy wax rek lu gaa yi wax ñu ne ustaas dañuy wax rek waa yónnent bi newatu mag ñi fi nekkoon dem nañ te ñu ne ustaas yi lu ñu wax dañuy wax léegi ku ñu jàpp kon waxal kan la ñuy topp kan la waxat diina fañ ko doon toppante ñii biñ fi bàyyee ko ñii ñii kenn ku ne ma jamono ya nga tolloon di borom xam-xam yi ñooy ñaa ñoo war a wax léegi nag wakku naan nukka si yow mi diini dañ ko weddi woon gëmuñ ko du gaa yi wax ñu ne dañuy caxaan ñii nii kuréel bii biñ duggee safara lii lañ def ñu ne nag ci lii la nga nekk xataa ataanal yaqiinu ba dee dikk ne ci caaxaan yi ba dee dikk yaqiin foofu mooy dee buur nee na fama tanfaahum du leen jëriñ nag ba dee dikkee safaahatu saafihiina ramm way ramm yi gis nga kon ku mën a ramm du la ramm yonent bi du leen ramm nit ñu baax ngi du leen ramm xam nga léegi-léegi dégg benn waaye boo xam ne ab sëriñam la yaakaar rammab sëriñ day xaju ci ramb yàlla borom bi subhanahu ndax yàlla mooy digal sëriñ bi ne ko dama ramm ku yàlla waxut ne ko dama ramm ko duñ ko ramm ndax gis nga fii mu ne fama tanfaahum safaahatu ràmm bu ràmm yi du leen jëriñ lu tax yàllaa leen tere bu da romb moo tax gis nga mina malaikati wala anbiya yi wa saalihin fama lawum lan moo leen ñeel kay ba nga xam ne nekkoo ngeen mu ari diina di du mooy di di dëddu ani taskirati ci waaraate wi mu alquran lan moo taxoon ngeen du mooy ko gëmu leen ko li taxoon ngeen du mooy ko nag moo tax yéen it yéen a safara rek ngeen ay dugg yàlla ñu fi yàlla musal buur nee na ka annahum daa mel ni ñoom kerek umurun ay mbaam mbaam sëf lañ mbaam xàll umurun mooy mbaam xàll mustanfiratun mbaam xàll yoo xam ne dañ leen a tëbal tëbal mbaam xàll yoo xam ne daf leen tëbal ana lu leen tëbal ña ngaay daw lu ñu farat ña daw laa min min xaswaratin ci gaynde xaswara ci turi gaynde yi la bokk kere dañoo tiit di përpëri ba mel ni mbaam mbaam xàll yooyu bu ñu gisee gaynde ni ñuy dawee kere gaa yooyu di dugg safara noonu la ñuy tiitee waaw baati ndaanaa da nga foofu nag moo tax may na saari suuf bi nag da ngeen ci bàyyi yéen taalibe yi waaw ñun taalibe yi boobu ñu bàyyi xel ci saari suuf bi dafa bëri ay baati ndaanaan maa ngi daan nañ wax ne sax am na ci bu bu jàkk gaa yi daan taf tafsir suñ tafsiree ba xag ci xaaj suuf bi fa la tafsiree daan daan <laughs> daan daan cange di lay rek bés bu set daan kii tafsir yi tey damaa dem ngénte wala damaa dem fële parce que du ñemee dugg ci biir loxo bi léegi nag comme yow ñëw nga ci baat yoo jafe yi wala saar yoo jafe yi te xam ne doo mën a dem léegi da ngaa préféré rek bari soxla boo légee mu dem ngénte ñu ne ah tey de oustaz ñëwul bu ko naa léegi mu dem dëj bu ko naa léegi mu def nanga ba weer koor jeex rek waaw su beneen su déwénee mu leer ko du ñeme continuer ci saaru suuf mu dee dalaat beneen kaamil waaw daan naa di daw di ko daw ndég loxo yi baat yi jafe ciy nekk waaw baat yi dañoo kàtt lool maanaa yu bari muy tafsir bii ñu toll du yombul de ba tax mel ne ñun taalib yi ñu ñu profité ci yéen ab ngeen profité ci baat yi takk ko waaw ka annahum daa mel ni ñoom xumurun ay mbaam xàll lañ mustanfira yoo xam ne dañ leen tëbal farrat yoo xam ne daw na min xaswaratin ci gaynde ña daw gaynde yi balli fi nekk yuriidu dafa bëgg laa wax kullu mri'in nit ku ne minum ci ñoom an yu'taa ñu jox ko soofan téere munassaratan téere boo xam ne dañ ko wisaar kenn ku ne ñu jox la sa téere sa téere jëf ku baax ki ñu jox ko téere jëfam ku bon ki moom ñu jox ko téere bu yées ba hmm. kallaa kama xaalu lan noomino lakk xataa tan si laa leen ak kitaaba naqara uhu mu ne nit ñi dañoo bëgg ñu jox leen téere bu nuy jàng waaw mu ne loolu tolloon nit ñi ku ne dafa bëgg ñu jox téere ndax waa Màkka bi yonent yàlla maam ma ñëwee fañ na ko su fekkee ab yonente nga kay da ngaa war a andi téere parce que gaa yi fi jaar dañoo andoon téere loolu mu ne moo tolloo kullu mri'in bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munazzala kenn ku ne dafa bëgg ñu jox ko téere bu muy liir kon bu la neexoon sax ci luxatan nga fiire mun a saratan mu nekk téere bu ñuy liir wala bu nuy hubbi boo hubbi di ko liir kàllaa jàjju laa wax balli fi nekk dañuy fenn téere yi boo leen ko joxee du tax ñu gëm laa yaqaafoona ragaluñu al axirata laa wax dikk ak bés pénc ragaluñu ko yoon nekku ci dañoo yaakaar ne gars yi dañoo tëdd di nelaw rek wala ko dee jeex na xam nga loolu moo gën a yaatu ñi gën a gëm ne ku dee jeex na loolu moo gën a yaatu moom da nga dem sax ci kuy julli di woor dina waaye pour moom gëmut dee dekki waaw gëmut dee dekki parce que li la koy xamal mooy euh, lii yàlla di yàlla di dig jaam yi du la jaral dara li yàlla di dig jaam def nangam mu nangam ku def nangam yëpp bu dara kay gëmuloo gëmuloo fay waaw gëmuloo dana que boo gisee tey société yii buñ la sasee ngay nangoo liggéey lu tax da nga yaakaar ku dee ñu fay la. nga gis koo xam ne buy xëy bu bëgg a tardé sax day daw yang yang jooy xam ne pour lan bañ a tardé rek ñu conseil la noonu kay boo ko gëmee woon lii yàlla wax ne ku def nangam nangam nangam kon kay jaamu yàlla yu caaju jaral la ko waaw kallaa jaaju leen laa wax harfu istiftah la say hubbee innahu naka alquran mi taskiratun ak waaraate la alquran day waare de wax naa leen ko ca juróom-ñeenti ya nga xam ne moom la moom la xamee waaw ku dul déglu waalaate jarul déglu alxuraan faaw mu dal sa kaw yar bi kay moom faaw mu ñëw wax naa ne ci bind nit ñi mooy wax ak ñoom yoonam sa taar bi yoonam sëriñ nga yoonam taalibe nga yoonam góor nga yoonam jigéen nga yar bi daal moom day dal rek mooy taskira faman saa kum neex nag sakkarahu nga nangu waaraate yi rek kay wax kum neex nga nangu ko kum neex nga nangu waaraate yi waaye yàlla nee na nag léegi-léeg sax mu neex la te doo ko man ndax lu tax yàlla moo la digut yiw yàlla moo la du dig yiw comme yàlla digul la yiw nag doo ko mën a déglu mooy wamaa yaskuroona du ñu mën a waaru illaa an yasa allah lu dafa neex yàlla ah huwa moom yàlla ahlu taqwa mooy yeyoo mooy yeyoo ñi yàlla waa ñaragal yàlla ñooy xaritam ahlu taqwa mooy yeyoo ñi yàlla wal magfirati mooy yeyoo it ñi nga xam ne ñooy ñooy jéggulu yàlla wa ahlul magfirati mooy yeyoo ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy yàlla bi maanaam daal li mu bëgg a wax mooy yàlla partenaire am yi mooy ñi yàlla yàlla partenaire yi mooy ñi koy jéggulu loolu la aaya bi bëgg wax ah yaakaar naa saar ba jeex na waaw kon sóoratu Mudassir mu ko ji ngeen nim bëree njëriñ waaye ji ngeen nim garaawe loolu toxoon yonent bi mu ne saar yi ñoo ko bi jaawloo te moom di guri ko ndaw <laughs> bi saar yi li muy wax ku ko gëm ngay gaaw bi jaaw ngay weex te sa weex du jot ndax tiit xam nga tiitaango bu bari day gaaw bi jàlloo nit ñu dugg nag ci sóoratul qiyaama gis nga de bii ci la bokk de waaw xiyaama mooy taxawaayu bés pénc lañ tuddee saar bi xam nga ko dara du ci yomb waaw saaru sóoratu xiyaama soo tàmbalee sóoratu fatiha di compte par saar bàgg ci alxiyaama soixante-quinze saar ngay am juróom-ñaar fukki saar ak juróom sóoratu xiyaamati màkka la wàcc soratu qiyaamati ñeent fukki aaya la soratu qiyaamati hadadul kalimaar ay baatam cent soixante quatre baat la baat yi téeméeri baat la ak juróom benn fukki baat ak ñeent ay xarafam hadadul huruuf limi ay xarafam six cent soixante quatre xaraf la 664 xaraf xam nga jeexal nañ saar wale ndeysaan yàlla bind yàlla nañ yàlla bindal tiyaabu ju toll ñu waxoon noonu na waxoon naa leen na leen xaraf yi 1015 xaraf la te 1015 xaraf yonent bi ne benn xaraf boo jàng ñi bindal la fukki tiyaabo 1015 nag man man sax 3 laa ko multiplier waaye nekk multiplier par 10 la war a doon loolu bëri na de hmm? léegi nag bii 664 la. 664 xaraf fekkee na xaraf bu ne ñi kël defal ñu ko par 10 i dana bari de 664 multiplié par 10 bu saar yu jeexee bu yàlla defee jàmm ñu jeexal ko balaa heure bee jeex loolu la ñu yàlla bindal man de gëm naa ne danañu ko bindal waaw ah waaw ah, 6640 waaw multiplié déet multiplié par 10 ah lan. 664. ah déedéet 6000 laa wax 600 waa 664. waa 6000. 640. ah. 6000. ah 640. mu ko kon loolu la ñu xam si tiyaabo ah yal nañu ko jeexal nag ñu am loolu waay <laughs> ah lu bëri na de <laughs> moo lii moom waroon naa di dendoo yéen sax bu ma jëlati saar bu ne ñu xam ay xarafam ngeen calcul ma luñ ci am ci tiyaabo buñ pare Ah, benn sërëm nga ci dolli ah d'accord ah ngoo ko nga dëgg mhm. ngoo moo kon kat ñëw nga ci la ma doon wax démb ci sero <laughs> lee taw lee tawoon waaja lee tawoon waaja meskin jëloon sero <laughs> waaye léegi dafa am lu mu fàtte léegi sero faa faa am lu ko jiitu bala sero nanguwul ñaar du nekk nit bu nekkee góos te sero yi faa am lu ko jiitu <laughs> moom la loolu la fàtte woon ay wa dem saar wii de moom am na ay njëriñ solo nañ ci yonent bi mu ne man qara'aha shahidat lahu ana wa jibrilu yawma alqiyama annahu kaana muqinan bi yawmi alqiyama wa xaraja min qabrihi wa wajhuhu musfirra ala wujuhi alxalaiqi yasha nuruhu bayna yaday yonent yàlla Muhammad nee na saar wii di suratul qiyamati ku koy faral di ko jàng bu yowmal qiyaame man mii maa laay seedeel man ak jibril ca yowmal qiyaam ne yow mii ko gëmoon yowmal qiyaam nga booy génn ci sa bàmmeel sa cëlmaay day leer ba mel ni badar te wax na ñi njëkk a dugg aljana seen cëlmaay noonu lay mel comme ni weeru badar lay mel mu ne sa leeraay gi dana leeral leeral leer ba ku la jege sax boo moytu di gisaale fu muy am kanamam day leer yasaa nuuruhu bayna yaday waaw ñu solo ci ku ñu tudde abi jaxfar mu ne man admana qiraata suurati uqsimu wa kaana yahmalu biha baasuhu llahu wa jalla maa rasulillahi sallallahu alayhi min qablihi fi ahsani suura wa yubassiruhu wa yadhaku fi wajhihi hatta yajuusu ala siraat wal misaan abi nee na saar wii di suratul qiyaamati laa uqsimu képp ku koy faral di ko jàng ba pare di ko jëfee bu demee ci biir nag da gis saar wi li ci nekk ci liñ war a jëfee mu ne képp ku saar wi li ci ne su yowmal qiyaamee boo deexee booy dekki yaa yonent bi yeney ànd nga génn ci sa bàmmeer génnee melokaan wu rafet ànd ak kontante ànd ak sa cëlmaay leer nañ ñi ngay kontaan kontaan bay mujj di ree ngay jàggi siraat nam la neexee ñu ñu te ñu peesee la sa téere jëf yépp gañe loolu danga ko am bokk na ci ba tey mu ne wa itmaanu qiraatiha saxal di jàng suratul qiyaama yajli bu risque day joxe warsak waaw di ko jàng day joxe warsak ñu ne rekk mu ne déedéet wa siyaanatu dafay joxe itam ñoŋe day tax nga ñoŋe mucc ci lu baree bare bari daal wa yu xàbbibu ila naas day tax nit ñi bëgg la nee na loolu saar yu da joxe qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tajlibul xafaafa wa siyaanata mu ne yonent bi nee na képp kuy jàng saar wi dafay tax sa xol di gën a ragal yàlla xam naa lool nag ku ko jàng te xam la muy firi moo tax kon nañ fexe xam ko ñun tey waaw day tax nga fegu day tax nga ñoŋe waaw man qara'aha lam yaqaf min sultaanin waxufisa fii laylatin isaa qaraaha wa nahaarihi bi isnillah bokk na ci ngëneel a saal wi nee nañ képp ku koy jàng jarul ngay ragal buur ndax buur mën la dara dara dara dara fexe ba tey rek bàyyi waaw wax nañ ne ku koy jàng guddi boo ko jàngee guddi yàlla aar la ba ba set boo ko jàngee bëccëg itam yàlla aar la ba jant sox loolu doy na di lii kat xëpp na ko lu jeex boo demee ci borom xam-xam yi ñi ngay wax rek di dem waaye nu ñu indi ci lii doy loo ko acca dem waaw boo demee nag ci saar wi bismillahi rahmaani rahim laa uqsimu maa ngi waat gis nga yàlla ngay waatati bi gëñ bi yawmil qiyaamati ci bés pénc ci laa di ñu ne laam gi kat saa it la saa it dafa dolleeku ndax yàlla bu ko neexoon rek mu ne uqsimu maa ngi waat du jar nga ci indi laam gi waaw laa uqsimu maa ngi waat maa ngi gëñ laa wax bi yawmil qiyaamati ci bés pénc wala uqsimu maa ngi tëkkit maa ngi feddali sama waat sama gëñ bi nafsi ci bakkan allah waamati bay yeddaakoon bakkan bi nga xam ne day yedd boromam bakkan xam nga moo tax boo demee ci suufiya yi nit yi suufiyanke yi ñoom dañoo mën a jàngale ñi wane ne bakkan dafa am ay martaba ay escalier bakkan léegi-léeg nga yéeg ci bii jàll fii jàll fii moo tax léegi-léeg ñoom bakkan dañ koy xaaj euh, lu mat juróom-ñaari xaaj moo tax xasamoo nafsa ilaa safati aqsaam bakkan def nañ ko juróom-ñaari ñoom sufiyanke bu laay tarbiya nag dañuy bëgg nga tàmbalee ci di la tarbiya nga yéeg bàyyi ko ci bakkan al amaaratu bisu dem ci lawaama topp par benn benn ba kere ngay xàgg nag ci nafsu radiyal mardiya wala boog nafsul kaamila ñenn ñi di ko tuddee kaamila boo demee ca ndeysaan euh, téere boobu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moom ku yàlla mayoon la ci loolu waaw bind na ci lu baree bare baree bari fu yor daatu rabbaani la téere ba tudd boo demee da nga ko fa fekk ma nga fay jàngale martaba yooyu ni ñuy yaree nit ki ba yéegal ko ci maqaama yooyu annafsu al awal mooy al bakkan bi jiitu ci nit ki mooy bakkan boo xam ne lu bon rekk la lay digal mooy saay-saay bi ci jubagut tubagut bakkan bi lu bon rek lu bon rek waaw hiya nufusul kufaar yi mooy mooy mooy bo bakkanam koo xam ne gëmul yàlla waman xasaa xasuuhum ak koo xam ne yaa ngee dox dox dox seen doxin xasaa xasowum ñëw na ca maqaam koo xam ne yaa ngi dox seen doxin doxinu yéeféer kooku itam bakkanam lu bon rek la koy digal man ngaa nekk nag jullit ngaa de waaye sa bakkan bi lu bon rek la lay digal laa tawmaru bi xayrin aslan du ko digal lu baax mukk wa ma salika radiyatun bi afaliha muhassanatun laha xànd ak nag li ko bakkan bi digal baaxut mais dafa foog ne dafa baax asaani ñaareel bakkan bi mooy allawaama bakkan buy yedd waaye lati taluumu saahibuhaa mooy bakkan boo xam ne day yedd boromam boobu moom commencé na di di di di dëpp léegi day dem def bàkkaat léegi bu génne nag deer dama def xawma li ma ci dugal mais du teeg suba dana ko defaat de <laughs> parce que xamagul garante bu dëgër bu koy téye ba du dem bu gaa yi demee rek mu dem waaye nag fu mu génnee rek rëccu loolu mooy allawaamu mooy deuxième bakkan walaw kaana mujtahidan fi taaxa donte mi ngi góorgóorlu ci baax ci baax ak topp yàlla mab mabdawul xabar waas lu taraqi loolu mooy mooy tàmbali waayu nde waa mabdawul xayri kay la bëgg wax dafa yàq mabdawul xayri mooy njëlbeenu yiw wa aslu taraqi mooy cosaanu yéeg nit ki buy tàmbali yéeg foofu lay tàmbale dangay ngay premier fexe écarte nafsu amaara bi suu mu romb ko nag jëm na ci nafsu lawaama foo defee lu bor rek mu yedd la asaalisu ñetteel bi nag al mulhimatu mooy bakkan bi nga xam ne daf lay yénke wal lu bon lu bon ak lu baax moom ñaar yëpp lay indi jóoral sa kanam moom la yaa moom ngeen jàng ci alquran alquran wa yëlati alhamat fujuraha wa bi nga xam ne alhamat fujuraha fa alhamaha wa taqwaha yàlla ne na am na bakkan boo xam ne daf lay bëggaloo lu baax dina la bëggaloo lu bon yëpp ngay boole rek kooku nag mooy mulhima arabio ñeenteel ba nag mu ngi tudd al mutmina mutmaina mooy bakkan bu dal bi wayeelati itma anat billaahi mooy bakkan bi nga xam ne dal na nag léegi di jaamu yàlla wasakkana tahta maqadirihi mu daldi sax ci euh, ay dogal yàlla yi alxaamisu juróomeel bi nag mooy arradiya mooy bakkan bi nga xam ne radiya la gërëm na yàlla waaye moom lati mooy bi nga xam ne radiyat gërëm na xam ne laay ci yàlla fii jami alaati yi ci ay mbiram yépp lu ko dal rek day gërëm yàlla bu neexee mu gërëm yàlla su naqadee mu gërëm yàlla asaadi su juróom benneelu bakkan bi almardiyatu mooy bakkan bi nga xam ne moom yàllaa ko gërëm bakkan bi nga xam ne moom mardi yée lati juusi te biri daa minallaahi am na fayee nañ ko ngërëmal yàlla yàlla léegi moo gërëm bakkan bi mooy gaay yooyu nga xam ne dañuy dem ba xàgg ci maqaamaay lu mu ñaanati yàlla yàlla def ko comme li ngay wax ne li ngay dégg ñeneen sëñ sa sëñ sa Fallu àggoon na ci maqaamaay na am mu am na am mu am mooy lu mu ñaan yàlla yàlla def ko waaye nag boo ci xàggee ngay mandu ku mandu lay doon moo tax nettali nañ ko ne ay nit dem nañ fa di ko ñaanloo ndox ko ñaanloo ndox xam ma dafa du du du day wax na xam mu xam waaye ñaan yàlla yàlla nangul ko waxin la bañ koy ñaan loo ndox ñu ne lum leen waxoon daf ne woon jox leen ma satale kële <laughs> waaw moom dafa yeewu ko ku mënoon a jàngalee dégg na ñu jël satale gi jox muy sotti gaa yi di gis ndox mi dafay xaralale mu leen ndox mii fàllu moo ko moom mii <laughs> ndox mii fàllu moo ko moom waaye ñu ngi mi ci kaw asamaan si ñu naa mën nañ ko ñaan borom <laughs> seet nag bind bu rëy moo tax ku xereñoon la te mën a jàngale ñett li ne yi waaja ba mu ko jotee ci yoon sa ndaw sa fekk ko ca toolee di dawal oto ba fekk ma ca toolee di liggéey ndaw sa daldi di daw rek daf oto ba daal di sëñ bi sëñ bi yóbbaale ko ci oto mu dugg ba ci biir mu ne ah mbàkke lii de ba àjjana rek mu ne kaa ah, naa la fekk ci yoon wi de <laughs> ah, <laughs> naa la fekk ci yoon wi de moo tax gaa yi nit ñee leen di tuumaal waaye ñoom kii rek lañu wóoru maa la ko wax borom mbaal mi dong lay góob léegi nag boo àggee ci mardiya maqaama la yàlla mën na ko may ku ne yàlla na ko yàlla may waaw bañ romb ko sax nag wa yallati juusita bi ridaa min la bi na man min ridaa man ah, man radaa lawoo a ridaa koo xam ne ci yore ngërëm ay gërëm na la yow kay mucc nga saabi o ñaaree bi nag mooy alkaamilatu mooy bakkan bu mag kaamila eh boobu nag moom boobu moom ponkal yi sax fañ koy jakkante mënuñ caa àgg waaw nafsu kaamila mu ne nag xaayatul maraati bi mooy dayo martaba mooy martabaay martabaay yónnent yi lu jëm ci yàlla dootoo ci am lu la naqari lu jëm ci yàlla dootu ko dootu ci yow lu métti métti day mujj nekk lu neex ci yow moo tax gis nga saxaaba yi ñoo nett ne yónnent yàlla Muhammad bu nekkaa nag moom ci jihaar ji affaire bi daf leen di jaaxal yonent bi doo xàmmee bu nekkee ci jaar ji ak bu nekkee ci kër gi doo ko xàmmee ci cëlmaayam bu nekkee ci kër gi boo ko xoolee ba saa satul bi ngay gis cëlmaay yi li mu féexee boo ko xoolee mu muñ du am benn problème bu nekkee ci jaar gi noonu lay mel kooku mooy nafsul kaamila dootoo am loola naqadi ji nga ñooñu nag bu ñu xàggee foofoon yàlla dafay mujj na leen di nga sama waa ji ñu ne ah mu ne damay mujj nekk ko de nekk naa waa ji léegi nag yàlla daa mujj dafa mel ni yàlla fa mujj nekk nit ki yàlla lay mujj nekk nit ki nee na lu mu def man la dootul def ci sagoom lu mu def rek yàlla la moo tax sax nga dégg ci nit yàlla yi nit yàlla yi daan dema dema de baax ci maqaama bi da daan wax naan man yàlla laa wax nañ nag ko Abdou Xaadir Jeelaani sax dal na ko man yàlla laa dafa daan wax naan ana allah laa ilaa ilaa ana wax dii laa sarika lii fi mulki fekk moom waxul ñu ne ci làmmiñu yàlla lay waxe ci làmmiñu yàlla lay waxe waaye moom du jëmmam mooy wax waaw loolu mooy nafsul kaamila yàlla na yàlla yéegal ñu ci waaye ak bëri ndax toog coono nag bés boo ci duggee xam nga coono am nga problème dootoo mën a nekk ak nit ñi problème rek ngay am bés boo duggee ci maqaama bi xam nga problème yow dootoo mën a nekk ak nit dof lañ laay mujj tuddee gisoo Cheikh Omar Fouti yu kalaas googu Cheikh Omar Fouti fu mu fu mu dëkk fu ne la daan dem ab saagam rek la gàddu woon ndeysaan ay jamono gàddu saag bi rek man su nekk fenn xaj suuf si sax day xat ak moom waaw ba ni mu nekk ci jaar yi suuf si dafa xat moo tax fu ne nga dégg ñu jaar dafa parce que adduna day mujj xat ak yow doo mën a composé ak doomu aadama yi yow li ngay gis ak li ngay yëg ñoom duñ ko yëg li nga xam ñoom xamuñu ko dangay gis koo xam ne ci koo safara la ba pare di reetaan. léegi yow mi xam ne safara def toog danga nga mën a toog ak moom gis nit kuy dund di lakk loolu da ko mën a muñ da ko mën a muñ looloo daloon xidaar ak musaa moo tax nga gis xisaa ak Moussa bi mel noonu doy waar Moussa dafa lay xidaar dafay gis nit ci xam ne kii mi nit ak safara la moo tax ba mu gisee xale ba ba mu dajee xale ba mu dajee xale ba rek mu rey ko parce que xam ne nit ak safara la Moussa ne ko da ngay rey nit man xatt wax ko wax yu diis ku rey nit la ci xaju yëpp. mu ne ko kii du nit ku baax safara laay dem yàlla xamal na bu yàgg na ci nit ak safara yi la léegi nag loolay tax yow sa duna lay xat muy nafsul kaamila waaw ñu dem kon loolu laa bëggoon a indi ci nufoos yi waaw nit yàlla yi loolu lañ ci njàmbaas laa uqsimu maa ngi waat bi yawmil qiyaama laa wax ci bés pénc wala uqsimu maa ngi feddali sama waat bi nafsi ci bakkan laa wax allah waamati bakkan ba yeddaa koon laa wax ana waat gi mooy lan jawaabu xasam bi mooy ayasabul insaanu ma ndax dafa jortu al insaanu nit ne an na jamaa duñu composihaat duñu dajale laa wax xisaamoo ay yaxam doomu aadama dafa yaakaar ne bu deexee bañ suur ko ci biir bàmmeel sax yi lekk yaram wi yax wi tasaaroo yax par yax dagg-dagglante tasaaroo dafa yaakaar ne jeex na kenn du dajalaxaat ay yaxam yàlla na a ah kay bala ah kay xaadiriina ñun yàlla attan nañ laa wax ala an nu sawee ñi xemale waxuma sax yax yaram wi waaye banaanuhu ay kóol baaraamam banaana yàlla nee na yaram yi nii kay waxuma ko bara yax yu mag yi sax waxuma ko waaye déedéet yax yi gën tuuti muy banaana yi muy kóol baaraan yi benn benn par benn rek yàlla nee na yëpp danaa ko monter benn bu defam nekkoon mu nekkaat doomu aadama bi dekkaat waaw qaadirin ko de waaw dafa bëgg laa wax moom nit al insaanu nit li yaf jura pour mu ngand ngandalu di rëy rëylu ak a weddi yaf jur mooy weddi amaamahu li nga xam ne moo nekk ci kanamam muy yowmal qiyaam da ko bëgg a weddi xam nga nit bu weddee dekki rek weddi nga yow nga nekk la nekk ci gannaaw dekki nit ki balaa muy balaa ñuy dem yowmal qiyaam dañuy dekki yow na nga weddi dekki kon weddi nga yowmal qiyaam moo tax yàlla nee na li yaf jura amaamahu doomu aadama dafa weddi li nekk ci kanamam te mooy yowmal qiyaam yasalu mi ngay laaj laa wax al ayyaana yowmal qiyaama kañ la bés pénc yéefar yi nag ñoom dañoo yàkkamti ñu naan yonent yàlla Muhammad kañ la ñoom xam nga bu leen yàlla tontoon kon ñun duñ juddu di bu leen tontoon ci jamono jooja ba doxal ko kon ñun duñ juddu hmm? moo tax bés bu ne gaa yaa ngee laaj naan yowmal xayam kañ la yàlla na leen mi ngi ñëw xam nga kañ laay ñëw mu fa isaa bariqa bés bu gëlëmee bés bu bémpemee bayax bariqa mooy bémpem xam ngeen bémpem de mooy ñooñ nga xam ne bu guddi jotee seen bët yi duñ gis boo baax bu demee ba bët yi bémpem duñ mën a gis albasaru gis yi yépp gëlëm kenn du gis waqas safa daal li muuru alxamaru weer wi weer wi ji daal ko muur ndax li doon leer yëpp dañ koy dindi leer gi dañ koy dindi hmm? wa jumiha ñi daal di boole asamsu jant bi wal xamaru ak weer wi ñoom ñaar mu jant bi weer wi yàlla boole leen xeew leen xeew xalab ci xalaba kere yaqulu dana wax laa wax al insaanu nit yow may sin kerek aynal mafaru ana fan laa daw jëm nit ñi ñëpp ay jàq kenn ku ne na man fan laa war a daw jëm kenn ku ne di wala kalaat ko war a muccee yàlla ne la kàllaa jarut daw amu fi amul daw de fii <laughs> fooy daw jëm te xam nga yomal kaay bi tax naqari affaire bi naqari daw xoolal man nettali la ko xam naa ñu ko fekk waaye yàgg naa ko fi nettali bu yowmal qiyaamee nit du mën a daw yàlla dafay jël doomu aadama yi mu wërale leen nii ñu wër ñoom ñëpp ci benn barab juróom-ñaari ndomb ñu wër ñëpp wër jinne yi ñoo hëpp nit ñi yàlla indi jinne yi ñu escorté doomu aadama yi wër leen juróom-ñaari ndomb yàlla indi mas asamaanu benneel bi asamaan bii li fi nekk ci malaaka day ñëw fekk nit jinne yi ak mala yi ak yëpp ñu wër leen malaaka yi wër leen juróom-ñaari ndomb ñu ne foofu laay xam yàlla mu ne déedéet ñu dee la indiwaat asamaan ñaari at moom it mu ñëw fekk nit jinne yi malaaka yi yi nga xam ne ñoo asamaanu benneel yu ñaareel ñëw wër leen juróom-ñaari ndomb asamaanu ñetteel ñëw wër leen juróom-ñaari ndomb asamaanu ñetteel ñëw wër leen juróom ndomb juróomeel ñëw wër leen juróom-ñaari ndomb juróom-benneel war leen juróom-ñaari ndomb juróom-ñetteel war leen juróom-ñaari ndomb ñu foog ne malaaka yi foofa la ñem ñu ne déedéet yàlla na xaaral ma indi renwa yi ñu ne kaaras yéen ne kaaras déedéet ñëwaat war leen juróom-ñaari ndomb foofu daal fooy yëpp tootu leen ko moo yàlla ne na kallaa laa wasara ilaa rabbika yawma isin al mustaqam xamu daw kenn du rëcc ala ko wax yàlla ne ne kallaa jàjju leen laa wax laa wasara ke amul wéeruwaay waaw benn weeruwaay rek moo fa nekk jàll jalaaloo xasa kamaaloo hey ku ci wéeruwutoon laa wasara ilaa rabbika jëm na ci sa borom yow may sin kerek almasaqu màngukaay ba gaa yi yëpp ñu ngi leen màng kerek ñépp ñu ngi leen màng fu jëm ci seen borom ilaa rabbika masaq mooy màngukaay ba ñu ngi leen màng jëmee ci seen borom wala mustaqar nga rek masa masàq bi mu ci kanam kay eh, waaw ilaa rabbika jëm na ci sa borom yow may sin kerak al mustaqaru saxuwaay ba saxuwaay ba ñépp dañuy xàkk ci kanam yàlla taxaw yu nabbaw danañ solo kerak al insaanu nit daañ ko xamal yow may sin kerak bi ma xaddama ci mboolim lim jiitaloon ci lu baax wa aqara ak lépp lum sàggane woon yàlla dana ko wan loo jiital ci lu baax yàlla dana la ko wan waaye li nga sàggane woon te man koo def te defuloo ko yàlla dana la ko wan mooy wax akkat waaw loo teg balil insaanu balil insaanu doomu aadama basiratun ku xam la ala nafsi ci boppam yàlla mu ne doomu aadama moo gën a xam boppam balil insaanu waaye doom bal gi bu ko lëggéeyal bu lëggéey bu ko lëggeel ci caramel balli fi nekk ak di guddal wax ji balil insaanu neel nit ñu ne ah mu ne basiratun ku xam la xalaa nafsi ci boppam doomu aadama ku xam boppam la booy jàng usul daf ñaay waxal na la ci alquran dafa bari ñu ñuy tuddee ijaas dafa am ci arab lu ñuy tuddee ijaasu saydi xam la ñuy tuddee ijaasu naqsi xam la ñuy tuddee ijaasu istihaariya ijaasu saydi mooy léegi-léeg ñu dolli du ci bokkul mooy laa mu laam gi boo ko dindi it uqsimu moo rek la kon laa laam gi saydi la léegi-léeg xam ijaas yoo xam ne naq si laay naq doon dañuy wàññi yàlla ne was alil ah, was alil xariyata laajal waa laajal dëkk ba dëkk nuñ koy laaje ab dëkk yàlla dafa goon a was al ahlal xariyati ñu ijaas ko dagg ahlu bi mu des xariyati nga ne was alil xariyata laajal dëkk ba ñu ngi mel ne benn waay mu ne laajal jàkka ja fekk na mu ci jàkka jàkka dañ ko laaj dafa bëggoon a wax laajal waa jàkka ja loolu la ñuy tuddee ijaasu naq xam lu ñu tudde ijaasu istihaariya ijaas boo xam ne pour xabal xabal xabal xab xab la da nga koy xabal barab lu mel ni benn waay bu ne uridu al qaid ci arab qaid qaid li muy firi mooy ñag lakk fekk nit ki bi ma wax uridul qaida dafa bëggoon a wax ne damaa dem duus mu bëgg a wax mu rafet nag mu ne uridul qaida maay dem ca ñag ba ñu ne ko ñag dem nga ci ñag kat moom dara dem ca ñag ba taxu koy dem mais la ko taxoon a dem ci ñag mooy dem duusi au lieu nag mu tudd dem duus bi pour mu rafet mu tudd ñag ba rek mu ne uridul xaay loolu la ñuy tudde ijaasul istixaariya gisoo boo demee ci alquran itam laysa ka mislihi sayun da koy gis xam nga laysa ka mislihi sayun moog laysa misluhu sayun benn la amul yokk amul wàññi laysa ka mislihi sayun ak laysa misluhu sayun benn maanaa la ñu ne kaaf boobu kon saa loolu la moo tax loolu day bëri ci alquran ñu def moo tax buur nee na balil insaan waaye nit noonu koy fire basiratun ku xam la ala nafsi yi ci boppam laa wax walaw alqaat donte sànni na nag mahasiruhoo ay ngantam donte mi ngi jéem a lay naan man kat nangam nangam nag moo gën a xam boppam sàcc bi boo ko jàppee muy lay naan man dama tëboon fii ak dama yaakaar lii fi nekk moo gën a fen moo gën a xam ne moom moo sàcc waaw moo gën a xam ne moo ko yàlla nee na moo gën a gën a xam boppam donte nag mën naa jéem a indi ay pexe ay lay waraw alxamasiru donte day jéem a sànni ay lay aaye bii di ñëw nag yàgg naa leen dinañ ko junjal mi ngi nii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bi ko jibril di ko jàngal alquranul karim su ko jàngalee alquran bu ko jàngalee benn aaya bu jibril na ko iq mu yonent mu ne ah mu ne ko iqra bismi bi alladi xalaqa xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalami allama al insana yaalam wax naa la loolu moo ñàkk wàcc wax naa la kiis gi ma la ci waxoon sax bu ko yonent bi waxee loolu maalam yaalam ba pare jibril day continuer kallaa inal insaan la leen xaar raaw tax naa moom mu bëgg dëppaat di jàngaat iqra pour bu nga ko fàtte mu ne parce que nee na bind bi day bëri muy dëpp na di yoot yootlu pour bëgg a wax li ci gannaaw yonent bi yàlla na ko déedéet yow bokkul ak gaa yi ni ñuy jàngee de yow kay nag jaar yow xam nga moom moom yonent bi xolam bi xolam bi dafa mel ni encre boobu nga gis ca euh, photocopie bi boo xasee dugal rek da koy kaste xol bi moom buy dugg rek day kaste mu ne ko bu ñëwee wax rek yow topp ci buy paree rek yow mokkal nga ko moo tax mu naan ko wala laa tuharrik bihi lisaanaka laa tuharrik bal yëngat laa wax. bii ci alquran lisaanaka sa làmmeñ li tax jala pour na nga yàkkamtee mokkal bii ci moom mu ne ko bu ko jaru ngay wax di waxaat pour yàkkamte ko mokkal laa taxarik bii lisaanaka la fii ndaanaan la de fii boo koy firi boo tey rek <laughs> léegi bii ci alquran laa wax lisaanaka sa làmmiñ li tax jara pour na nga yàkkamti bii ci mokkal gi yàkkamti ko mokkal ina xale naa yàlla na ko jis nga war na ci man jam xawu boole ko maa koy boole ci sa dënn bi wa quraanahu jàngal la ko ba mu sax te dootoo ko fàtte man la war maa koy boole ci sa maa la koy jàngal léegi nag xam nga nooy defati yonent yàlla moom mun a mun a ko fay saa xarax naawu suñ lay jàngal téere bi dina jàngal alquran di la jàngal ay fattabi toppal quranahu njàngam mi waaw buy jàng waxal rek yow waaw buy jàng su ma inaa leenaa topp war na fi man yàlla bayaanuhu leeral ko moo tax wax naa ne léegi-léeg nga dégg sax la fi xew ci dëkk bi ñu naan nit ku jàngul moo neex yóbbu càll bi ma ne ah, ah. moo gën a neex yóbbu ci yàlla ku jàngut moo gën a neex ci ay naxaate la ay ku jàngut moo gën a neex yóbbu ci yàlla loolu ay naxaate la yàlla waxul loolu de yàlla fa ne ko jàngal soo jàngee ba pare leeral li nga jàng nag man maa ko yore su ma inaalee naa albayaana kon albayaanatu bi yaddi laa waaye nag wal qiraatu bi yaddil insaani jàng nit ki moo koy def leeral gi yàlla moo koy def kon ñaari ñooy ànd kon nag bu nit ñëwee ne la mën na laa yóbbu ci yàlla te ne la jarul ngay jàng yow koy bu xool benn téere fa la bëgg a nax ndax ponkol moo xam ne jàngut xamul dara ku topp nekk jaamam rek jaamam rek <laughs> waaw ja dof rek laay def waaw bari na fi de bari na fi de hmm, waaw looy wax mu ngoog kàllaa jàjju laawa moo tax su ma inaa leenaa bayaana yàlla nee na maa yore leeral gi mais jàng gi pour yéen la yéen jàng xam su ko defee man ma leeralal leen te wax naa la na la kuy taalibi ku ne soo ko laajee du sax tubaab même français bii ngay jàng booy jàng nii ngay yëg ne di ngay jàng doo ko comprendre normal mais da toog rek di ko xam da ngay toog rek di ko comprendre di ko yëgal di ko xam te xam loo du tax yow ba koy jàng xamaloo ko nga toog rek xam ko nga xam ne yàlla moo wax ne ku jàng ma xamal la. loolu du arabe rek de français lu mu doo rek jamono yi nga koy jàng nii da ngay yëg ne yow dégguloo ko comprendre loo mais nga dem rek ay jamono commencé muy dikk ndànk-ndànk muy dikk ndànk-ndànk ba nga loolu mooy bayaanatu bii kallaa jàjju laa wax kallaa mane ne bal fi nekk kay tuhibboona dañoo bëgg ñoom doomu aadama alxaajilata lu yàkkamti lu gaaw rek lañ yàkkamti lañ bëgg mooy àdduna xaajala foofu ñu ne mooy àdduna waaw doomu aadama lu yàkkamti rek waaw daara boo ne àllaaxira ngi ñëw tay léegi te yow bu ñëwee xamoo lu muy ñëwee dafa jar yàkkamte hmm? ah, adduna soo neex sii xam nga ne adduna naqariwut de <laughs> adduna nii yéen a gëm na xam ne naqariwut xam nga genn góor daf ci waxoo ju xorom mu ne adduna xam nga li tax naqariwut ñu ne ah mu ne kenn bëggut a dem bu naqariwul kay nit ñi bëgg a dem màggat mu xonootoon ngay gis muy ñaan mooy ñi koy ñaanal yàlla nag fi yàlla nag fi yàlla nag yàgg bu naan amin kay laa ilaha illallah waaw <laughs> bu dee amin kay te ba màggat na de lu màggat màggat du bëgg a dem day bëgg a toore mu ne moo tax nga xam ne duna daa neex waaw moo tax mu ne doomu aadama nag moom dafa bëgg lu yàkkamte donc waaye soroona dañuy bàyyi al axirata al axira bëgguñ mu gaaw a ñëw bëgguñ ci dara dañoo bëgg adduna te bëgguñ alaaxira yooyu soroon ak ñuy bàyyi alaaxirat bés bu mujj ba wujjoowu na am na ay cëlmaay yow may sin kerek laa wax naadiratun day day day leer nañ ñi naadira day leer nañ am na cëlmaay yoo xam ne yowmal xayaam dañoo leer ñu war a dugg àjjana yàlla ñu ci yooyu aji xol lañu ismu fayil rab bi rabbiha jëm ci seen borom tellement yoo xam ne dañuy jàkkaloo seen borom di ko xool waaw waaye beneen kuréel baa ngi nii nag woowu joowoon am na yeneen tellement yow may seen kerek baasiratun ak yi ñëkk am na yeneen tellement yoo xam ne ñoom dañuy ñaw de ñëkk waaw tu sannu dees na jortu sax an yuf xala ba defees bi ca tellement ya faaqiratun mu nekk njombalaan mu ne cëlmaay la day ñaaw a ñaaw a ñaaw boo ko gisee sax yaakaar na njombalaan la te mooy boo gisee rek tiit dangaay boo boo gisee si cëlmaay yowmal xiyaam ñi nga xam ne dañuy yàlla koo ci xool rek ba moytu yow mën nga caa doxee dof far ndeg cëlmaay looy ñàng loolu mooy fàqira te sunna an yofala bi fàqira kallaa jaaju laa wax isa barakati bu jotee laa wax bu yeggee ruuxu gën a bëgg a wax za baraq bu yeggee bakkan ba ak taraqiya dënd baat yi mooy bakkan gi buñ ko ñoddi bu ñoddi ruu gi di ko ñoddi ba mu àgg fii ci sàqi baat yi ndax nit foofu lay commencé bëgg a dee ah mu mel ni dañoo poñe purox gi kàddu gi dootul nangu lu mu lekk dootul dem bu dee ndox boo xoolee du dem bu dee lekk du dem xaaral nokki gi moo cee des nokki rek lay man léegi moo tax buy nokki foofu sax day ŋa day ŋa parce que bakkan yi dañuy nokki gémmiñ gi di nokki lépp commencé na di dee di yàqu loolu la yàllaay wax ne isaa balaqati taraqi yi kere yàlla nag day laaj ay laaj waqila ma ràqi yàlla na ana ñuy mocc ana ñoom imaam toog kaa leen mocc koy gaa yi nga ñoo doon ay mocc kët ñoo leen mocc laa wax ana borom fas yi nañ ñëw fas gaa yee bind saafara ñëw leen borom sunguf yi ñëw leen ngeen suut ko loo def mu lànk man ràq gis nga yow bi ngay def lii ki koy def moom moom la yàllaay waxaat ne wasam naa àndoon firaaq moom leer na ko ne moom day dem ngay sa bopp rek yow yaa ngi ñëw di ko mocce mais moom leer na ko day dem yaa ngi ñëw di ko taal sunguf moom leer na ko day dem parce que moom gis na ne moom dema des mooy wasan na wóolu na ne ànd woon na ko moom alfiraaqu day tàqale ko ka duna tay de day dee d'accord na tay day dee waaw waltafati dana daanu laa wa kerek tegante a saaqu yeel bi saaqi ca yeel ba da ngay dem ba ci kanam mu jël benn tànk ba dóor ko ci moroomam dootu ko mën a yëkkati ji lii boo ko yëkkatiwul dootu jogate de yow man xeyam la jëm nit dana toll foo xam ne buy dee cër bum dóor bu mu dóor pare na boobu dootu jogati bu jëlee tànk ba ba ne ku gàll ko fii pare na dootu jogati yaa koy yëkkati bu ko xaralee dootu ko dellooti loolu mooy wal tafati saaqu bis saaq ah, yàlla fu waaji jëm yàlla mu ne illaa rabbika alma saaqu ilaa rabbika yawma isin alma saaqu kon da ngay wax ne alma saaqu mànguwaay ba alma saaqu teeruwaay ba ñu ne ah mu ne yawma isin kerek ilaa rabbika jëm na ci sa borom boo ko defee rek dégg ko de hmm, boo ko defee nga koy dégg wax naa leen xadam dafay jegeel maana xanam loolu lay génn xanam dafay jëriñ daf li muy jëriñ mooy jegeel maanaam yi maanaam yi dafa mel dafa sori woon bu jegeel la ma ilaa rabbika yow ma isin alma sàqu nga ne alma sàqu yow ma isin illaa rabbika fahimtum aywa fala saddaqa fekk waaji mostu sarax wala fekk mu mostu julli kii am na problème bi am na problème gune yi wax bu sérieux <laughs> problème bu sérieux laay dégg gune yi ko wax man nag moom xaw ma ci xaw ma sax luy sérieux man waaw ma am dof la la dégg nga wala wala wala sadaqa fekk moom julli wutoon saraxi wutoon wala salla julliwul waaye kazzaba daa weddi woon alquran wa tawalla mu du mooyu nangu koy gëm du ko déglu du ko jàng ta nañ ko fonk de fu mu ji nga yi ci alquran la koy dellu benn téere bu yàlla am ci kaw suuf ba mooy téere bi amul bii dong la fi am benn néeg ba mooy nii bii amu ko fi lu néeg bii rek la fi am mu ma ne nii bii nag dafa yóbbaale bépp jàkk moo tax ma ne nii bi bépp néeg néeg bii rek la fi am mooy néeg ab rek la fa am waaw kon nag li yàlla moom mu nekk ci masaahirullaahi yi war nañ ko fonk téeréem bi nañ ko fonk jàkkaay yàlla yi nañ ko fonk waaw moo tax gis nga walaakin kasa ba dafa weddi alquran wa tawala mu du mayu ba pare nag suma saaba topp mu dem ilaa ahlihi jëm ci ak njobootam yetta mattaa muy rëy rëylu di ngand ngandalu paa boo nekk ci pénc ma di waxtaana waxtaana waxtaan ba bàyyi ko fa dem daal di wax njoboot gën a leen toj naa pénc ma <laughs> di ngand ngandalu yàlla ne ko ah ngand ngandalu amul solo de waaw safara wuwu nag mu doon tudd wala boog dee googu mu doon tudd ne nit ki dana dem ba sonn ba ji bu jëlee yeel ba teg ci morom ba du ko mën mën a yëkkati loolu la yàllaay wax ne aw laay yell na lakk ñeel la ndax tollu nga ca yell na ci yow nag léegi cër bu dem dootu mën a dikk ndax da war a dem aw laa na ci yow fa aw laa topp yell na laa wax su ma aw laa yëpp tàkkil la topp yell na lakk yi ñeel la fa aw laa mu yell yell na ci li nga def noonu jël sa tànk teg. beneen bi dóor ci koom dootu mën a jog loxo bi bu jógee dootu mën a jog loolu lu yàlla la ci yow ndax dangaa war a dem yàlla laaj mag benn laaj istifham at taqrir wala istifham at tawbiq istifham mooy laaj laaj boo xam ne kii laaj dafay soboote xaale ci laaj gi ki muy laaj wala laaj boo xam ne kii laaj lu muy laaj dafay wone na dafa am mu ngi mel ni ma janoog alaaji Malick ma ne ah kii du alaaji Malick en tout cas ko laaj de alaaji ba leer na ma ne kii alaaji Malick la kooku mooy taqrir istifham boo xam ne laaj taqrir waaw ayaa sabu ndax dafa jortu laa wax al insaanu nit muy yéeféer la ci namu an yu daka ñu bàyyi ko waa suddaan muy booyu rek doomu aadama dafa yaakaar ne dañ koy bàyyi rek mu dund diggu ndàndaat ba la ko neex dee du gaa jël ah ah wala dafa yaakaar ne dañ koy bàyyi ci kaw suuf rek muy dund te du dee ah ah yàlla nee na bàyyiwuma doomu aadama ndax loolu bu mu ko yaakaar sax alam yëpp ku ma ndax nekkutoon moom doomu aadama nut fatan nekk too nekk maniyu nut fat min maniyin ci maniyu laa wax nut fatan ab toq alam yëpp ndax nekkutoon moom doomu aadama nut fatan nekk benn toq min mën nii yin ci mën nii yum naa boo xam ne sotti nañ ko ci biiru ndeyam yàlla mu ne xanaa doomu aadama bi nii di ngand kay kii nii di dër dëri di wane ne moom dafa am doole dafa am kàttan xanaa moom dafa fàtte moom nekkoon na toqante mën nii boo xam ne ci biiram ndeyam la nekkoon fàtte na ko de ok fa jaal loolu nga teg su ma kaana topp mu nekk gannaaw gi alaqatan di aw lumb gannaaw gi mu paase lumb euh, nekk lumb gannaaw bi mu nekkee mani fa xalaqa yàlla daal di bind ci lumb booba mu bind ci mu nekk nit fa sawwaa mu xemale ak bindam fa jaala mu tàmbali fa jaala mu def kay waaw minu ci moom zawjayni yàlla ne mën yu boobu mu liggéeyoon def ci xalaqa yàlla bind ci nit mujj nag def ko saw jay ñaari xaaj nit nekk ñaari xaaj ñaari xaaja mooy man mu ne asakkara góor wal ak jigéen yàlla bind góor bind jigéen fa mu def min wu ca mën yu booba wala xalaqa booba ci bind ak saw jay ñaari way dencante mooy saw jay ni ñaari way dencante mooy ñaan mu ne asakkara góor wal unsa ak jigéen waaw ki def lii manut man ma ma man manu man manu laay rey nga dee dugg ci sa biir bàmmeel mu dekkal mënu ko ah man na ko de moo tax mu laaj bii mu laaj laaj bii nag mu ne alay sa saalika man ndax du loolu yëpp mu wax ki def lii man ndax nekkut koog bi xaadirin di xattan kooku xattanut xaalaa an yox yi ci mu dundalaat almawta way dee yéen ñëpp ne leen balaa waaw ñu ne saar bu jeexee loolu ngay wax laaj bi yàlla laaj ñépp la ko laaj moo tax mu ne fu ñu jàngee saar ba tollu fii rek ñëpp nañ wax ne balaa yàlla man nga ko kay man nga ko kay yow mi bind doomu aadama ci toqante mëniw mu bàyyi ko ci toqante mëniw nekk xalaqa bàyyi ko fa nga bind doomu aadama jaarale ko ci biir ndeyam mu juddu ba dundam jeex nga dellu ko faataa ñu dugal ko ci biir bàmmeel ndax ndax yàlla jile mën na koy dekkalaat ñu ne balaa ah, kay man nga ko moo tax ñu ne saar sax ku koy jàng bu la nit di jiitee sax sa imaam bu jàngee saar yi bu ne ala an yoxiyal mawtaaneel balaa loolu la borom xam-xam yu ma wax moo tax ñu def ci balaa kon balaa foofu la ñuy yem insha allah taala sadaqallahu alhasim wa ballaka rasuluhu alkarim wa nana ala ma qaala rabbuna wa xaaliquna wa rasiquna maulana min asaidin subhana rabbika rabbil izzati amma alamin